di Khady yi moom moo nekk ci machine bi gannaaw bañ leen nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoog rajo Futur Média nan ko waxee ca bopp ba noonu lañ koy dooree Fouta tampi tampeetul ci Macky Sall ak gouvernement moom ñoom ñu di kuréel googu Fatoumata Ndiaye jiite moom delluwaat na fële ca ay ñoñam ca Fouta foofa ma ngay woo ñii di ay ñoñam ñu laxasaayu ngir fexe ba jàppale njiitu réew mi Macky sàll leeral yeeg Ali Bandal Niang ñett weer gannaaw tournée économique bi njiitu mi doon amal fii ci Matam mu amoon ay yëngu-yëngu mouvement bi di Fouta Tampi doon ñaxtu seen jafe-jafe yi doon dundee tey kat mouvement boobu la yëkkati na kàddu di lu amélioration yi ngi ne gis nañ ko seen njiit di président bi di Fatoumata Ndiaye tukki la doon amal fii ci dëkkam waaye nee na njiitu réew mi daanaka dégg na bu baax seen message. tey ba mu demee def nañ changement yu bari ndax la mu defi da nga ñëwee. bi dafa def euh, arrêt une médiate ne doomi ndendoor yi buñ koy ubbi doomi ndendoor yi waa Fuuta ñu ci war a njëkk a yoonu daanamaa bi mu ngi koy defar rang-rang bi defar na ko ba macha allah oto ñu sonn ñu gis tamit pose euh, premier pierre Ourossogui bi hôpital bi waaw ñuy fàttali tamit euh, nit ñi bu ñu jàpp ñun ay noonu président dafa fekk ni dafa am lu waroon Fuuta ñu gisuñu ko ñu wax sunu mboroom nag dimbali ñu ba la ñu jot a wax président mu ngi koy def kon boog loolu ci sant yàlla ah, sante ko ak attaque yu violent yooyu nga xam ne dañ ko doon yëkkati di ko doon yàq njiiti mi tey jii kat jiite mouvement bii di Fouta Tampi mel na ni tension wañeeku na bu a baax la nga doon xeex la koy defal defe a bu nit defee mën a taxaw ne def na war a mën a deltu gannaaw te président nag mu ngi cay def lu Tampi nag dañuy waajal ab tukki nemmeeku ci département bu Podor waaye itam ci région bu Matam fa nga xam ni fu ne daañu dem duut baaraam li nga xam ni moom la leen njiiti réew mi defal laata kon ñuy wax la nga xamante moom moo des te mu war leen cee mun a jàppale ngir soppi xar kanamu diwaanu Matam mu nekkoon seen naataango Aliou Bandel ñaa fii ci doonu Matam pour RFM